xëy des collègues inconsolables. Un mari très serein malgré la douleur. Des témoignages unanimes sur l'illustre disparu Soxna Zeyna sur la pointe des pieds. dama nekk mosoon a nekk géwélam. Samba Sarr nee na Seyda Zeynab mii dem tey dama mos a nekk géwélam saa bu wax jotoon ñu war a wax. Elle n'a jamais eu de griot. C'est moi, son mari, qui est son principal griot. Et ça, je l'ai toujours réclamé à cause de son comportement exemplaire. J'ai pas honte de dire que je suis son griot. ko doon géwélu Zeynab Fall dëgg dëgg géwélam. ndaxte géwél bi ko tàgg bii géwél moo ko mun a tàgg. Sa vie Sokhna Zainab l'aura vécu sous le signe des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il aura marqué toute sa famille, ses collègues de travail, bref, de tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont connu. soppeem boobu nga xam ne bëggutoon ku dul moom muy Muhammad ba mu ca jógee dellu si wérut. Sokhna Zainab ne pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Depuis son retour de la Mecque, elle est convalescente. À la Mecque, même le jour d'Arafat, malgré sa maladie, elle a tenu à faire le déplacement à bord d'un véhicule pour sacrifier au rite euh, d'Arafat. wax na ñoom dañ ko indi ci oto mu mu teewe Arafa door faa jóge ñu laal diina ji de Une gardienne du temple, une vraie protectrice de l'islam, s'en est allée. Elle ne badinait même pas avec. Combien de femmes a-t-elle réussi aujourd'hui à tirer d'affaires Elles sont combien aujourd'hui à ne plus faire de la dépigmentation à cause de Sohna Zainab les témoignages de son mari Sambassar resteront à jamais gravis dans la mémoire collective une épouse dévouée et rompue à la tâche s'en est alliée à jamais. ngi am 15 ans laa ko ci ay loxo way juróom. nee na bi muy am fukki at ak ci la ko jëlee ci loxo way juróom. mosuñu toog benn yoon fi ñu toogal ay nit ne kaay leen régler seen problème. nee na bi muy am. je l'ai épousée quand elle avait juste ans on n'est jamais venu chez nous pour nous séparer d'une dispute ou tout autre. et elle passait son temps à s'occuper de moi et de ses enfants. boo xam ne bii lu dul sama tur def ko def saar. nee na toogul benn place lu dul ne turam def koo def saar. daf ko doon tari. daf ko doon tari. te loolu du woon man mais mbaaxam la. te nee na loolu nekkuloon jëmmam ji waaye mbaaxub Zeyna Fall la woon. Ousame Biéné la valeur n'attend point le nombre des années. Adja Sokhna Zeynab Fall aura de son vivant donné toute sa quintessence à cet adage. À 38 ans, et repose désormais auprès de son père à Tiaroy, laissant derrière elle famille, parents et alliés complètement désemparés.